daayiratul fadli buñ fornome war ngay sant yàlla ñun la sigil kësaloodam sidi baram rahmaan rahim alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala mawlana rasulillah wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim ورضي الله عن شيخنا ومولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نصر يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر بعد mbokki kër gi sopp yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax rek ne darsu bi nga xam ne ñu ngi koy sëq ak yéen bu ne da nga muy jawahiru rasail alxaawi baada ulumi wasilati alwasail li maulana cheikhul islam darsu bi nag ñoo ngi toll ci ar risalatu sabia leetar bi nga xam ne mooy ñeenteelu ah juróom-ñaareelu leetar waaye nag bu nekkee juróom-ñaareelu leetar rek ñun ñu ngi toll ci juróom-ñetteeli dars yow mi ma topp ci jawaaru rasaayil maa ngi ci vingt et un page page twenty mu ne bismillahi rahmaani rahim bismillahi sof na sama wax ci tudd turu buur arrahmaani buur bay xéewal jullit euh, bi dee fi àdduna yëpp arrahimi buur ba da aji yërëm jullit daal ci àllaaxira wasalaatu julli salaamu ak selmal ala rasulillahi yal na nekk ci yonentu yàlla alihi ak ci ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam ay kiyaameway baadu gannaaw bu ma tàmbalee suma wax ci tudd yàlla julli ci yonentu muhammad mu ne fa yasilu dana eggi alkitaabu leetar bii doo wax téere bi danga naan leetar bii ilaa yadi aizzi nnaas ci loxol ki gën a tedd nit ñi ñëpp wa alaahum te gën leen a kawe makaanatan place indiye fi man kooku defoor na Cheikh Ibrahim su joxonee nit ne kii moo gën a tedd gën a kawe place ci nit ñëpp ci man kooku war nañoo seet kan la mu ne mahallul ulumi kookoy barabu mbooleem fànni xam-xam yi yaani dafa goreel mbooleem luy xam-xam wal asraari ak mbooleem mbóot waa ji daf koo goreel waaye woowalat yi mu wax lu ma yéem nag ndax Cheikh Ibrahima kii muy pare pour waxat ci ati zahir magam la dégg nga mu ne woowalat yi tey suma doom ndax leetar bi Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mi ngi ko bindoon 1931 1931 la Cheikh Ibrahima bind lettre bi radiyallahu anhu yaa ngi dégg mu sama doom waaye wa ahdi tey suma kóolëre tam kóolëre mooy koo xam ne loo ne mu ne ceeg yow du la bàyyi ngay wéet wala ngay tumuranke kooku mooy kan waaye Cheikh Ibrahim mu ne bi jamii al maratib kooku mooy sëriñ bi ci mboolem martaba yi sëriñ ci mboolem martaba mooy foo ko dàkk fekk ko fa ma nga fa fes dal mbooleem fànni xam-xam mbooleem yëg-yëg yi ci wàllu yàlla foo ko fi dakk rek da nga koy fekk mu fes dal yaa ngi dégg Cheikh Ibrahim na saaxibu garaibil azwaq kii mooy borom mos-mos yi tumuranke yi allahu akbar xam nga xam-xam ñaari façon ngi xam-xam la benn bi ilmu dirayati la benn bi ilmu zawq xam-xam bu ñuy yër ci téere ak xam-xam boo xam ne yëg-yëg a koy maye waa ji bàyyi bëgg a wax koo xam ne la bi mu dajalee mboolem xam-xami këyit yi bàyyi oote daf ko ne da ngay oote bu dee ci këyit yi la new boo nga toog lépp lu nekk ci këyit la xam naa ko waaye ba mu demee ba xam ne nag caaxaan faaxee ni ko séeréer si di waxee la dawal fasam ñëw ci Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu bàyyi nandal ko ci ilmul azwaaqi waaye dem ba bàyyi man koo seedeel ne mooy saaxibu garaibil aswaq mooy borom mos-mos yi tumuranke wala ajaibi ak kiimaan yi kookoy kan ba tey bàyyi ngi présenté ba léegi mu ne man kookoy ki nga xam ne alhamahu yan kiiwal na ko allahu yàlla rushdahu njubam yàlla ko may njub gratuite liñ la yan kiiwal mooy loo xam nañ la ko jox ta sonoo ci nga ko gratuite moo tax man damay faral wax ne bàyyi def ñoo yëng kiiwal yàlla daf ñuy may yàlla gratuit radiallahu anhu doo dara <laughs> dégg nga ko coono bi ci gars yi di sonn sax doo koy sonnante mu ne wa jaala mu def moom waa ji allahu yàlla dégg nga ko himmawu mu yiteem wax dawu moom kese di da ma xayruhu ndax ittewoo kudut yàlla al agradu mooy poussière yi wal xutaamu ak poñet yi moo tax moom hitéewoowu ku du yàlla yàlla rek lay téew ku xam nag nooru nga war a def mu ne wa taazzuzu ak di jéem a tedd teddaloo indal xalqi ci mbindéef yi duuna taazzuz walis tedd teddaloo inda rabbil anaami fa borom bay borom mbindéef yi mu ne waa ji nekkul ci yoonu tedd teddalu ci mbindéef yi te tedd teddaloo fa yàlla mooy lan da nga gudd kuru su kaala dégg nga yu neex dara yu ponkal dégg nga te genn njub nekkul ci yow dégg nga la ngay wax ak la ngay jëf ca taanama bay na lees bii day ni man xelan dañoo sorewante dégg nga mu ne waa ji mu nekkul ci loolu dégg nga waa bàyyi kii présentation bi foor na de léegi wax ñu kii kan la mu ne alhaaji Mouhamad Zeynab kookooy ki nga xam ne bu dee ci ati zahir la mooy suma mag bi suma doomi bàyyi alhaaji Mouhamad Zeynab waaye bu dee ci yàlla la sama doom la moo tax Baye radiyallahu anhu parce que maam alaaji Mouhamed ko wax nag moom moom moo ne Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wa nahnu min lañ bokk ci dëgg te mage woon na Baye fukki at ak lu teg dégg nga Baye nuyu ko aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nuyoo bi allah mu ne yelihi dana méng nuyoo ba dana ca topp mm-hmm. al ilaamu qamle bi wusuli kitaabika ci egsi sa leetar bi leetar bi nga bind egsi na dégg ko wa bushirtu te bégaleef na ma bi buur i illatika ci wérëg sa jàngoro ji da ngaa feebaroon maanaam leetar bi bégal na ma ne ma am nga wér yaa ngi ci jàmm sa jàngoro jooj ëllëti ji nga xam ne ab nat nii soo ŋoŋ loo na ma soo ŋoŋ loo na ma amar xamoo soo ŋoŋ de soo mooy ku ku ku feebar ba jeex xob lapp wala nga ne soo mooy koo xam ne dafa xalaat ba jeex dégg nga ko yaramam wi dafa jeex tak nit mën naa jeex ci zahir yaram wi mooy lapp mais nit ku jeex ci baatin mën nga koo bañ a xam dégg nga bàyyi na ko sa feebar bii nga xam ne man de songoŋ loo na ma dama koo xalaat ba jeex bàyyi waa walhamdulilah maa ngi sant yàlla ci xibaar bi ma am ne ma tene nga wa shukru lahu waaye sant walhamdulillahi sant ñeel na yàlla ci làmmañ waaye wa shukru sant ci ay cërit lahu ñeel na yàlla mu ne ko wa asa na sax an laa yakuuna ba bu nekk min tuuli maradika ci yàgg ak sa feewar bi taatilun tardement li ci néeg yàlla bi al azimi ba di aji màgg sa de yàlla bu nekk sa loo xam ne dana tardé sa xaj nga war a dem xaj bi nga xaj mu ne ko fajaalta mu def la alayka war la mu def war la wadifatu hamdin taqoo sant yàlla wa shukrin ak sant yàlla ba tey sant yàlla googu nga ñàkk dem aji noo ci sant yàlla lan lay do mu ne bi an tajma ci nga boole lii nag ñëpp nañ ko dégg nga dajale jamii al mboolem taalibe yi dajale leen wal muridaat taalibe góor yi wal muridaat ak taalibe yu jigéen yi ñoom ñëpp nga dajale leen wa ajjil nga kobbi ndaggi ni ko saalum saalum yi di waxee ndaggi wala nga ne nga raxas comme bi gën a neex a xam dégg nga xuluubahum seen xol yi dégg nga ndaggil ma seen xol yi wa ballighuhum jotalal ma leen wax leen ne jotal leen an nii lu jóge ci man mm-hmm. na man Ibrahim Niass an nii naka man mm-hmm. udakkiruhumullaha maa ngi leen di fàttali yàlla wax leen ne maa ngi leen di fàttali yàlla wala ahd ak kóolëre alladi nga xam ne bàyyi na naa moo nekk suñu diggante maa ngi leen koy fàttali bàyyi ku fonk kóolëre te ku ànd ak bàyyi war naa xam ne yàlla moo la takkeeg moom boo fàttee dara lu jëm ci yàlla rek baay mi ngi lay wax wax ji mu wax baay Mouhamad Zeynab ne waxal gaa ñi ne man Ibrahima Niass maa ngi leen di fàttali yàlla ak kóllëre gi nekk sama diggante ak ñoom kóllëre gan mu ne fii taamimi bayt yi ci ñuy dundal néeg yàlla bi dem di julli ji bil waajibaat yi ci way war yi fi saairil awqaat ci waxtu yëpp te it wal lillaahi ak nekk ngir yàlla taalibe na nekk ngir yàlla nan la koy nekkee bi raf di kulli ma waaw ci bañ ci lépp lu dut yàlla rek bañ ndax in saxa taabir bàyyi la gën a xam ne lu dut xamut dégg nga waaye nag ne wàcc nga ci pays yonontu am na lu rafet am lu ñaaw yaa ngi mu ne la bi rafdi kulli ma siwaahu fi saairi alxalakaati ci mboolem yëngatu yi wa sakanaati ak dal yi wal xalawaati ak wiit yi wal jalawaati ak feeñ yi wa husnul muamalati ak rafet jëflante maa ka ànd ak nañu rafet nañu jëflante ak yow wa maa kulli man tax teg kullu man tax ak ànd ak képp koo xam ne nekk na ci sa ron yow xaaji Mouhamed Zeynab min iyaali cheikh ci njaboot ak sëriñ bi kullun ñoom ñëpp ala qadri xudu xudwatihi ci kemb cërëm rek wa sabqiyatihi ak jiitum dégg nga ko wa sinnihi ak atam wa ilmihi ak kenn ku nekk boo koy jox cër jox ko cërëb ku jiitu teg ko ci kanam ku mag jox ko cërëb képp xam-xam jox ko nag daf maa fàttali leetar bi bàyyi bi ndoon maam alhaaji Muhammad maam alhaaji ma abdi ñang ko alhaaji ma abdu am na ñuy ñëw ci yow waaye unzur bi aynil basira ci xoolal ci sa bëti gis kenn ku nekk nga wàccee ko sa wàccuwaay ko aajoo ñaan ñaanal ko waajoo jàngal jàngal ko ku waajoo jox wirdu kese jox ko wirdu ku waajoo tarbiya tarbiya ko ku waajoo tarqiya tarqiya ko ku waajoo lijaasa lijaasa xool leen ci sa bëti basiratu wala tajal innaas sawaan bul def ñëpp ñu yemoon ndax bu ñëpp yemoon cër am ñu gedd seen yees yaa ngi dégg moo tax Baay radiyallahu anhu ne ko séddal kenn ku nekk ci ñoom ci lu tolloog cëram rek nazilu naasa xam nga anzilu naasa la ñuy wax waa bàyyi nii la utilisé moom nazilu naasa wàcceel nit ñi manazilahum seen wàccuwaay waaleykum maa ngi leen di dénk yow xaaji Mouhamad Zeynab ak mboolem koo nekkat bit xaabu bu ci bëggante mbokki taalibe yi bëggante su ma ko daan wax ne danaa wax ma ne ñun ñëpp dañoo toog ci buntu néeg bi nan dañoo war a dugg ci néeg bi te kenn duggut ku téye micro rek li ngay wax mooy ñun taalibe yi dañoo war a bëggante ndax kii wax ne dañoo war a bëggante miñ ci wala néew ci. ndax miñ ci wala néew ci. du waxi kese affaire bi def la. <laughs> dañoo war a def. bàyyi na bit taxaabu bi ci bëggante. waxtiraami jamii ashaabi cheikh. ak ñuy hormaal mboolem taalibi Cheikh Tidiane. wala lii ni mu rëy. tey rek nga gis ci internet bi ñaari muqaddam ñu boole leen ñuy mën naa ko tuddee sa parce que affaire bi dafay dem ba dafay jéggi waxtaan ci xam-xam dafay jéggi dialogue ci xam-xam kenn ku ne bëgg a toroxal sa morom kenn ku ne bëgg sa morom faree suuf nga fare kaw yow gisatoo bàyyi sa bopp nga gis xiis nga bu yàgg te yëgoo wax naa ko ba sonn ci jotaay na danga nga jàkkaarloog sa mbokki mu dem ci télé wala ci internet bi nga wax ba pare ñi la topp naan la kii kay rey nga ko mm. yow nangam nangam yow kii yaa ko xam-xam kii nangam yow yaa ngi rey sa bopp te yëgu lor nga sa bopp bu yàgg amul benn njëriñ benn njëriñ la amul ah, benn njëriñ la amul da xam li bala fa des li nga xamul maanu ci affaire bi li nga xamul maanu ci ñi ko xam nga comprendre la dégg nga parce que ñëpp mënuñoo bokk gis-gis nag dégg li nga gis dem ci li nga gisul nga bokk ña ko gis su boobaa rek ñëpp dañ noppali ko dégg ko waaye du fi amee Baye waxoon na maam Alaaji Babacar ne ko wa maa ana bi saahibi sayfin man du ma borom jaas joo xam ne ku wax ku ma digal defoo rek ma caw la jaas déedéet coow lu bëri jëru ko nañ jàng Baye ñu noppale ñun ñëpp jàngee Baye rek noppal mu ne ko wax ci loolu ñàkk a xormaa lay jàngale te ñàkk a xormaa lante wurta dox ci suñ biir rawatina ñun xawaas te Ñas yaa ngi dégg mu ne ko waxtiraami jamii ashaabi cheikh mu ne ko fa innahum naka ñoom hmm. wallahi maa ngi gën ci yàlla hmm. madallatu qadamin tarqiisu ndëggu lañu mu ne doomi Cheikh Tidiane yooyu ak njabootam gi wala taalibi Cheikh Tidiane yooyu tarqiisu ndëggu lañu nan lañ nekkee tarqiisu ndëggu bàyyi ne faman képp ko xam ne waqaa tabbina fi xawaatirihim hmm. ci seen xaatir yi bi xayri ma yurdi cheikhu ci loo xam ne Cheikh Tidiane gërëmut ko é hmm. fala rubbama xamat na yu addi mu ne Cheikh Ibrahima ne fala rubbama yu addi min zalik mu ngeen daw min jamiel muxaalafaat yi ci mboolem luy waral uute yi na ko daw fi zahiri ci zahir wal batin ak batin xoolal tey ndax ñi daw luy waral uute yi taalibe bii muqaddamu diw sàngam la mënumaa bokk ak moom taala kii moo ko gisee si daayira bi damay jóg dem mënumaa bokk ak moom daayira kii nangam nangam muqaddam bi nangam nangam pare ñu nekkatuñ taalibe Cheikh ko rek dégg nga ko yooyu dégg ko àndut ak ëdëb sax ci këyit yàlla bi moo tax bàyyi ne na daw luy waral uutee gi ci zahir ak baatin ndax tag fa inna muxaalafata awaamirillahi naka hmm. uuteeg ndigali yàlla yi hmm. bàyyi ne adallu dalilin mooy tegtal bi gën a tegtalu hmm. mooy tegtal bi gëna a wér gën a leer anil bu'di anillaahi ci sori ci sori yàlla alal bu'di anillaahi ci sori yàlla ngi wa aleykum maa ngi leen di dénk bi rujuu ilallaahi ci dolli ci yàlla fi kulli lahzatin ci bépp gendeeku parce que fa innal humuma naka tiitaange yi hmm. wal xumuuma ak njàqare yi hmm. wal ahzaana ak njàqare yi ba tey hmm. kulluhaa lépp sababuhaa li ko sabab alxaflatu anillaahi mooy sàggan yàlla rek toog di tiit wala ngay jàq wala ngay mer di funki bët bu set di mere ñu la defut dara bàyyi na sàggan yàlla rek moo koy wax koo ko gisee sàggan yàlla rek moo ko wax ndeysaan tey cheikhul islam bàyyi na wali ngir loolu qultu moo tax ma ne hmm. inni man Ibrahima Niass raaytu gis naa acharra hay hmm. kullahu lépp diinan moo xam hayu diina la hmm. wa duniyan wala hayu adduna wa oxra wala hayu àllaaxira lépp fi shirki yàlla nga ko tëgg ci bokkaale yàlla yow nga ne xam nga yàlla léegi dañ nga ci bokkaale yàlla ngay toog di mer rek mere aw gaay dagg nit ñi ba diw doot waxtu du moom diw kay man ak moom moom seqatuñ bu bu ko séenee si jotaay sax man du ma fa toog nga teg ko fan ba pare yow yaay kan yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima ne wal xayru hiw hmm. kulluhu lépp fii adami shirki mi ngi si ñàkkaa bokkaale léegi nag bokkaale dafa am ci zahir am ci baatin yow taalibe bàyyi mu bokkaale ci yow hmm. mooy ñàkk yittewoo yàlla boo yittewoo yàlla rek da ngay dem ba yàgg ngay gis sa bopp da ngay toog si jotaay bu ñu la présenté wu sax nga gis sa bopp. dégg nga bu ñu la joxu togg bu nooy sax gis sa bopp. dégg ak façon yooyu xam ne tey dund gi ko yooyu dama koy gis. xam ne dafay ñëw su gis ne gars yi ñu ngi toog ci chaise yi mu dëpp dem te damaa ñëw fii xormaaluñu wala damaa ñëw joxuñ ma kàddu ma wax yooyu yooyu bakkan bu fukk <laughs> dégg nga Cheikh Ibrahima ne. wattihaadul wijha ak bennale sunu sunu sunu jëmuwaay bi maanaam ñu bennale sun xibla bi liñ teg si suñ kanam ñun ñëpp ñu bennale moom lim ñuy dugal mooy ñu toog Cheikh Tidiane suñ kanam muy sëriñ bi ñun ñëpp ñuy taalibe mais ñun liñ ciy déggee mooy nañ teg bàyyi si suñ kanam ñun ñëpp di ay taalibe moom muy sëriñ bi allahu anhu bu boobaa rek lépp bu baax bàyyi na daraba sadd na expliqué na allahu yàlla masalan benn explication daa nii benn lépp mu ne rajulan benn waa joo xam ne fii nekk na ci moom shuraka u bokkaale mutashaakisuuna yuy war a joo dégg ko dégg ko jàllar bi ko wa rajulan ak waa joo xam ne salaman mucc na li rajulin ci ab waay dégg nga moom amut bokkaale tooñu kenn defu dara ak waa joo xam ne mu ngi fees dell ak ay bokkaale léegi hal yastawiyaani masalan ndax ñaar ñi danañ am misaal loolu duñ am boo demee suratu zumar la ci aaya 29 ne waa alamu xam leen ne anna faydata cheikhi naka faydub cheikhu tidiane bi kastaha bi comme niir yi dooti taw yàlla ji mën naa xiin nga ne xiini bu mu tiim sama kër mën naa ne kon taalibe Baay doo am sama kër ku ko wax sa day nekk taalibe Baay doo ci mën dara wal matlubu lañ soxla ca niir woo war a taw minha ca niir wa wujudul amtaar wujudul asmaar mooy am meññat laa bi mujaradil amtaar déet taw kese yàlla ji mi ngi taw li ñuy defee taw bi buñ jigee mu sax nekkul ne dañuy ñaan taw pour mu taw kese kese déedéet mu ne comme tariqa char bi lan lañ koy defee du nekk ci tariqa bi kese kese waaye luñ ko war a defee sa dégg gi na la ko motal dégg ko ne eh, laa laa bi la am amtaar nekkul ne ñun dañuy ñaan taw kese pour mu taw kese kese kese déedéet pour mu tawee mu meññalal ñu lañ si jublu donte xam na ne yàlla mën naa meññal te du taw mu ne woon zuru xool leen kayfa talabu bu samrati naka la ñuy kayfiyatu talabi samrati naka la ñuy sàkkoo meññat fi xaalil basaatini ci waxtu tool yi alxissiyati yekk jug tool yi xoolal koo xam ne dafa bëgg dugub wala ku bëgg gerte wala ko bëgg bët wala ku bëgg nu muy def xool ko rek da koy xool leen rek Cheikh Ibrahima mooy wax mu ne in kaana wuquul amtaar su fekkee ne taw muy taw tabbik taw bi rek yugnil insaan dafay doy doomu aadama fii ci toolam an izalati alxashiishi si mu génnee mbopp mi dindi mbopp meeg yëpp ah, Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne xoolal su fekkee ne bu yàlla ji tawee li nga ji mu sax am yeneen yu sax yoo xam ne bokku ci tool bi da nga koy génnee ndax yow li nga soxla woon ci taw yi mooy mu saxalal la li nga ji ci boppam Cheikh Ibrahima mu ne faka daalika ni ki noonu albasatinul maanawiyaat tool yi maanaa yi noonu la mel te tool yi maanaa yi mooy suñ tariqa beeg suñ fayda bi alhamdulilah mu ne noonu la mel <laughs> ah su boobaa déggkat bi na dégg bu baax waaw <laughs> bàyyi fa tasawuf tasawuf dëgg laa taquumu du taxaw dégg nga ko bi niyatihi ci yéenam illa bi tawhid lu dul ci wéetal yàlla wala ibadati ak jaamu yàlla rek ci la tawhid mën a amee wa zuhudu ak dëddu àdduna wala raaw ak sàmm ñu xamul yàlla nag boo leen ne dëddu àdduna dañu yaakaar sol ay sagar la wala ay mbubb yu daax wala ay tànk yu xar wala di tilim wala sewetment yu tilim wala foo toll di xeeñ wala yu ni mel loolu du ak suufiyanke de suufiyanke da ngay sol lu set di lekk lu baax lal parfum yu neex suuf bu cher mbaxana yu rafet daagu ndànk di wax lu leer bu kenn yebee ci yow sa sëw loolu mooy suufiyanke wa zuhudu ak dëddu wala waraxu dégg nga ko ak sàmm bàyyi ne wa zuhudu dëddu àdduna wala waraxu ak sàmm laa yuuja dégg nga ko waaw laa yuujadaani defut leen xam mukk illa bi mulaazamati sabri lu dul taxoo muñ ku muñut doo mën a am dëdd doo mën a am dëgg ko dëdd euh, euh, sàmm doo ko mën a am bàyyi mu ne kon fa sabran na muñ a muñ muñ mën a def liñ la muñ a muñ a muñ be ala chinaabi nawaahi ba mën a teet liñ la tere nga ba ko wa sabran na nga muñ a muñ a muñ a muñ alal makruhaati ba mën a ba yiñ sib nga ko min maa cee nga xam ne jarat daaw na bi hiit ci moom almaqadiru dogal dégg nga almaqadiru dogal bàyyi na fa bi hada ci lii ma la wax tuuti ngay mën a joxe alxaq dëgg xaqahu dëggam ja wa tastaslimu nga mën a mucc nag li hukumi ca atem ba wa tarda nga mën a gërëm anillaahi ci yàlla fi afaalihi ci ay jëfam ak taklifiyati ko jóg togg dégg nga ko waxee ha bu boobaa li yàlla def da nga ko gërëm loolu mooy iman bay mi ngi lay jàngal iman mu ne wa aleykum maa ngi leen di dénk bi husni zanni billahi ñuy rafet njortu ci yàlla hmm. yenn yi ñaaw njortu ci yàlla rek wa bi ibadihi ak ci jaam yàlla yi qaala taala yàlla mu kawe wax na ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa yi gëm yàlla ijtanibu na ngeen teet na ngeen défendre fekk hmm. kasiran lu bëri min a zanni ci njort ndax inna baada zanni naka yenn ci njort yi ismun bakkar wala te jës na suuf bu leen yurndoo yëddu ku yurndu gis lu la neex <laughs> bu leen yëddu de wala yaxtab te bum jëw baax baadukum lenn ci yéen baadan ba wallaay ndeysaan. dégg nga ko lii la. yàlla dañu ko digal bàyyi jagleel ko ay taalibeem. dégg nga ko tey xam nga li li ñunu neen si liñ ko a sawar yéen dégg ngeen diw sàngam la mu def. laa ilaaha illallaah seetaan nga YouTube demal nga xool tapal nangam nangam rek kooku de toj naa dugg. wallaay ndeysaan xoolal diw sàngam li mu def si groupe sàngam. xoola te lii muy def ci lu baax doo ko nettali mukk duñ ko mën a wax waaye njuumteem rek nga nga yàkkamtee tasaare dégg te def na junne yu baax ci loo xam waxu dégg nga yooyu rek dégg nga Cheikh Ibrahima ne wa maa ngi leen di dénk bi majaalisil xayri ci e dégg nga bi majaalisil xayri ci garam palaas yi xiw yi maanaam toog di waxtaanee xiw gaaram place xiw yi Cheikh Ibrahima mu ne maa ngi leen di dénk ngeen di ci toog ndax fa inna majlisul xayr naka gaaram palaasu maanaam jotaayu xiw yu kafiru dafay kaafara dafay mën a effacé alfay alfu majlisin ay junney junney jotaay min majalisi suu si jotaay caaxaan jotaay yu bon yu ñaaw yoo xam ne dafa dégg yooyu ñu bàyyi si xel bu mu ne ko wa te loolu ka majalisul ulama billah mi ngi mel ni ngay toogaaleeg borom xam-xam yi yàlla rek ñi nga xam ne ñoo xam yàlla au majalis zikri wala toog ci borom bi tudd yàlla yi moo tax daayira buñ ko caaxaanee de dégg nga wala wadifa wadifa nag ci buntu yi gën a war li anna ndax moom laazimatun lu war la laysa tatawaan nekkut mooma neex rek de nekkul daf lay neex nga def rek force wa shartuha te sharta wadifa aljamaatu mbooloo fa man faalahu waxda fa man faalaha waxdahu ku def wadifa yow kese te an lam yafaalaha bàyyi leen mu mel ni defoo ko ku wadifa yow kese mu mel ni wasifoo wa alaykum maa ngi leen di dénk hmm. dégg ko bi ilaai lhimmati ci di kaweel itte yi fillaahi ci yàlla wa talabi ziyadati ak di sàkku ndollal fi kulli waqtin ci bépp waxtu wa saa in ak saa zahiran ci zahir wal batinan ak léegi nag xoolal Cheikh Ibrahima yi muy digle fii boo xoolee loolu rek ngay gis ci la ñuy ne ci la yi ne dégg nga te bàyyi lim tudd wasifa yow kese wala ñàkk a wasifa ci téer bi kenn xamut lu mu toll man nag mas naa seeweral sax benn ma xam ma ne ko wasifa bii Cheikh Ibrahima di forcé dafa ne lu nga am ngàntu sharia ngàntu sharia mooy lan mooy ne li nga nekkoon koo lii laa nekkoon ba ñuy nga da la xëy nga nekkoon moo gën a nekk farataal benn ngay wala nga nekk ci lu mel noonu wala ngay gàgganti koo xam ne dafa naroon a toog yaa ngi dégg fii yaa ngi ci loolu mën nañ laa comprendre waaye yow nekkoo ci dara yaa ngi toog defoo dara wasifa waa ngi lal dégg ko jàkka jaa ngi ni soriwul la zaawiya baa ngi ni soriwul la nga toog Cheikh Ibrahima ne boo wasifaa yow kese yow amoo wasif dégg ko loolu nañ koo xam bu baax mu ne wa alaykum bi il bi ilaai lhimmati fi llahi wa talabi ziyadati fi kulli waqtin wa saatin zahiran wa batin mu ne qaala allahu yàlla mu yàlla wax na li xabibi ñeel soppem bi alladi soppe boobu nga xam ne tawalla yàlla moo méngoo tarbiyatahu tarbiya yonentu bi lay wax yàllaa ko tarbiyal boppam wa taalimuhu ak njàngam yàllaa ko jàngal nafsi ci boppam yonentu kenn jàngalu yàllaa ko jàngal taala mu kawe fi awwali ma nuzila alayhi ci lañ njëkk a ci moom fi aalamil hissi ci aalamu hiss aalamu yëg aalamu yëg mooy fii ñu ne am na aalam bu ñu nekkoon boo xam ne yëg amu fi dégg waaye aalam bii ñu ne moom yëg mu fi nga nekkoon nga ne yëg amu fa nag bu ñu nga ne sa bàyyi nga ne amul bàyyi mi nga gën a bëgg nga xam ne bu ñu ko tuddee nga yuuxu ba nga nekkee foofu bu ñu la bàyyi nga ne amul dégg mu ne ci alamul his waaye alamu his bii alami yëpp fii li ko fi yàlla ñu ko wax mooy lan iqra jàngal ci suuratu alaq mooy aaya bu njëkk léegi nag jàngal ku jàngal ah du pour xam léegi yow da ngay jàng li ngay jàng pour xam ko moo moo tax ñu di ko jàng léegi gars ñu nag xam yàlla am <laughs> ah ma foog ne liñ la war a xamal kay dañ la ko war a indil ba si kanam ba nga gis ko ñu door di la ko jàngal. lu fi nekkut danañ la ko jàngal loo xam ne xamoo ko. kon iqra njàngat yu rëy mi ngi foofu ci biir bàyyi ne wa asra mu rañaanee ko baada zalika gannaaw boobu bi mu ko waxee loolu gannaaw gi mu rañaanee ko wa araahu mu wan ko ayaat ay kaaw téefam. déjà wa tajalla mu feeñ lahu ñeel ko. Mhm. bi kamaali ci mat ak jëmm yàlla ci jëmmi boppam. yonantu lu mu nettali ci ci téere yi luñ ñu wax ñu ne yonantu bi mu rañaanee lan la fekk yàlla melow waxam ma fekk muy def mu ne dama fekkoon muy julli. laa ilaaha meloo yàlla moo tax bàyyi na wa tajallaa lahu ci jëmmam ju mat ji sëkk xam naa kamaalu zaati boobu de war naa eh, est loolu ñeme naa ko wax sax. dégg nga wa ataahu mu jox ko ilmal awwalina xam-xam way njëkk ñi wal axirina ak xam-xam way mujj wa zaada lahu mu dolli ko ala dalika ci loolu wa qaala lahu baada dalika gannaaw loolu nag mu wax ko ne waqul waxal yow Muhammad ne rabbi zidni ilman xoolal li yàlla jox yonent yëpp ba pare digal ko ne ko waxal ne yow yàlla dolli ma xam léegi nag xoolal moom xalifaam Cheikh Tidiane xalifa Cheikh Tidiane Baye Baye mu ne ñaari kaas yu fees boo leen bëggee boole ci benn kaas waxuma ne da ut bu leen ëpp de waaye da ut faj moo tax moom Cheikh Ibrahima dañ koo sottil xam-xam bam bam naan xat nii wa xat kasar doy na doy na doy na doy moom te moo roose Cheikh Ibrahima yàlla daf ko ne waxal ne dolli ma loolu nag ko amul xam-xam amoo gis-gis da nga yaakaar ne bàyyi ko xam-xam yonentu bàyyi ci yonentu lay tibbee di ci yonentu lay tibbee di radiyallahu anhu dégg nga ayat taala rabbi zidni ilman boobu moom tam tiis la bu doy waar sax ndax ayat 114 la tombeel dégg nga boo xam ne jaamiu aya jaamiu la jibril mikail israil dégg nga ko azrail mu ne fa bi haada ci lii taalam su nga xamee ne anna al abda naka jàmbi la matma lahu amut benn xemmem tiif wala waru koo am fi ihaatati ma ci léem wala peeg hmm. lépp loo xam ne ind sayidi yi nekk na ci sangam bi wa mawlaa wa tay kilifa wuroo am benn xemmem téef ci ne li na nekk ci sa sang bi mën nga koo daje te nga wala ahad amul kenn koo xam ne sax nii dana doylu billaahi ci yàlla ndax boo xamoon la nekk ci yàlla yëpp dootoo amati soxla ci yàlla boo tax ñu ne la al maarifatu billaahi xam si yàlla soo mënee xam li nekk ci yàlla yëpp looy defee ci yàlla hmm? ñi nga xam ne dañoo am ak fannaaw am ak jëf bu yàlla xëcc leen ñu tax a xeri dem nañ bay wax ci yàlla yoo xam ne yàlla xam doon nettal na eh, mu nanga ah maj sob xam te bàyyi leen gën a xam yàlla fuuf dégg nga mu ne waaye yàlla mu xam ne annama indahu naka la nekk ca yàlla hmm. baaxin dégg nga ko lu des la mu waaye dani yin lu jege la it dara sori ba li am kay ma lépp loo xam ne tatlubu lu nga ko sàkku amaamaka mi ngi sa kanam lépp looy ut rek mi ngi sa kanam gis nga ko wala gisoo ko moo fa nekk wa maa daa bàyyi ne ànd ak yëpp fa inni man raadin aji gërëm laa ankum ci yéen alaaji Mouhamed Zeynab laa wax fii kathirin min al awqaati ci lu ëpp ci waxtu yi fii amri zawiyati ci biir zawiyati dégg nga ko mm-hmm. ko wa amru axi ak mbiram sama mbokk mi wa axikum tey seen mbokk mm-hmm. fi amri jamii al jiraani ci mbiri mbooleem dëkkandoor yi dégg ko wala wala ilmi bu doonutoon ak li ma xam ne hmm. bi annakum naka yéen hmm. taamaluuna bi wasiyati yi da ngeen jëfee sama ndénkaane hmm. lama arsaltuha ilaykum du ma ko ebal ci yéen leetar bi ma leen bind su ma xuuroon ne su ma ko bindee du ngeen ko jëfee kon du ma leen ko bind ñun tam wax ji yi ñu koy wax nii eh. bëgg taale bu bàyyi jëfee ko rek bu ñu xuuroon ne kenn du ko déglu wala kenn bu buñ ko dégloo kenn du jëriñ duñ ñepp suñu gémmiñ gi sax. am nañ leneen lu ñu a def. dégg ko bàyyi na summa inni topp man asalullah tabaraka wa taala maa ngi laaj yàlla mu bëri mi xiw te kawe. Mm-hmm. an yaaxuda mu jàpp bi aydiikum seen loxo. ila kamaali maarifatihi jëmee leen ci gën jaamat ji xàmme yàlla amin wa yatawalla naa mu méngi ñu wa yatawallaakum mu méngi leen waxoo moom yatawalla moo méngoo gaa ñu baax ña bàyyi ne wasalaam wakkatama ibrahim ibnu alhaaji abdullahi tijaani mu ne bàyyi ibrahima ñes doomi alhaaji abdullahi tijaani moo ko bind bikkoo ci cëkkoosi dégg nga mu iidul dégg ko muy aji baamu nag assalaamu aleykum wa ala kulli man dammanahu majlisakum tayyiba mu ne maa ngi leen di nuyu ak képp koo xam ne mi ngi undu naa ñi mi ngi bokk ci seen jotaay bu tey boobu noonu am mille trois cent cinquante yaani ci hijriya la woon mille trois cent waaye bu dee milaadiya la mi ngi nekk mille neuf cent trente trente et un mille neuf cent si la ko bind yàlla yàlla ma ñu dégg topp dafa ñu taw fi إلا لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا koor ngay sant yàlla ñu la sigil gëstaloon sidi baram